yaa maaxiyan an xadi min qablu aw zara naadaaka fi lbarri baada albahri xaadimukum walyowma quttaluhu billahi maxtara akramtoo bi qira amnin wa takrumatin fa haada an jumlati alaswaai astara xallaytoo an siwa ridwani qablu kama bi حليته بمنى الدارين مبرارا بكنتها سيره liggéey baa ngi nii léegi xam naa dañ koo yaatal bu njëkk xëy na daaw ak li ko jiitu waaw xëy na doon na liggéey boo xam dañ ko yamale woon ci ñaari yokk yoo rek mhm. waaye ren ji daaw dañ ko ci mboolem jumaa ji xam na ne ñaari yokk yoo lañ daan jël waaye ren moom dañ koo yaatal ba nga xam ne mbooleem yokk yi nekk ci jumaa ji nit ñi dañ fi toog dog mën a dog mën a ñibbi daal ci jàmm waaw moo dem bu ne dafa wër waaw fii la góor ñu nekk jigéen ñi fa nekk côté bee tamit am na wàll boo xamante ne bi ay góor ñoo fay nekk hmm, ak yenn ci kilifa yi fiy ñëw doxal hmm, waaw donc ñeenti junni nit danañ fi ñëw ñu fi doog ñeenti junni waaw ci xayma yi ñu ko xayma xayma yi ñu koy xayma yi tamit ci kopp agité yi ñuy joxe yi ñuy jox nit ñi ñu koy jëfandikoo ci lañ koy xayma li ñuy génn ci ay kopp waaw suukar dañ def lu tolloog cinq sacs waaw anta nabiyu rasulul mustafa alaman صلى عليك الذي التفضيل قدر إني لجارك يا خير الورى أبدا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 wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima qad istahalla ramadanul muazzamu allahumma inna habibi wa khalili shahra ramadana qad istahalla alayya yawma al-ithnayni ama khamsata ashara wa thalathamiatin wa alfin wa rahabtu bihi wa sallamtu alayhi. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh gannaaw bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala moom mi nu mayoon ñu daje fii daaw mu mayaat ñu ñu dellu fii dajewaat ñu koy ñaan mu may ni ñu dajewaat fi ay at yu bare bare bare ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naal ak yéene ji am ci lislaam mu matal ko dan ànd ko ak moom ñu ñëpp doog ay Cheikh Mouhamadul Afi Cheikh Mouhamadul Basir ñëwaat na ni mu ko baaxoo defee at mu jot ànd ak njabootu Serigne Bara Mbacke gépp di ñëw di ànd ak yéen liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéeyal fii ci jumaa di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal diine waaye itam di ko liggéeyal sëriñ Touba fii mu yàgg koo ànd ak yenn ren ji yàlla dogal na mu ñëwaat noonu ko daan defee ànd kook ay bokkam yëpp ñi mu bokk sëñ Baara ñëpp kër gu nekk am na ku fa jógee ñëw ànd ak moom li muy jëmmalit day wane ne moom moo koy def waaye da koy defal njabootu Serigne Bara gépp itam di ko defal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Amine Bara Mbacké euh, muy sàkku tam rek ci yow nga ñaanal ko yàlla dolli ko wér ak kattan ak man-man ba nii mu ko ànd ak mu yàgg ko ànd ak yéen ci barkeb Serigne Touba rek Cheikh Mouhamadul Amine Bara nee na mi ngi lay sant yow bu baax a baax ci liggéey bi ak taxawaay bi di sant daayiratul xidma yëpp ñoom itam ci seen taxawaay ak seen pastéef ndax it euh, lii ñuy def lislaam lañ koy defal diine lañ koy defal waaye itam Sëriñ Tuubaa lañ koy defal kon nag ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may wér ak dal ak ak man-man ñu yàgg koo taxawee ci barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla junti jont sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général Mouride yàlla fi yàgg te wér ni ko baaxoo defee chaque année rek ñu ñëwaat ci weeru teddu mag bi di weeru koor di weeru yàlla màggal màggal bépp jëf boo xam ne dañ ko ci def ñu ñëwaat ci yi Touba ci daayira Muqaddam Xidma bi nga xam ne sëñ Afi Bousso mi ngi toog di njiit li ak mbooleem ñi mu ko àndal di wàkk sëñ Touba yëpp waaye yàlla jeg leen ñoom ab cër bu mag bu rëy ñu am tawféex yi ñu jël jumaa ji ak liggéey bi ak li ko war teg seen loxo euh, loolu nag ba amee ñu deme dem bi ci ñu dugal ci loo xam ne lu rëy lu mag la te mooy iftaar mooy dogal ay nit te loolu nekk jëf ju rëy ju màgg joo xam ne yàlla subhaanahu wa taala da cee da da ko bëgg lool yent sens soññe ci ba yent sens wax ne man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu laa yanqusu min ajrihi min ajri saa'imi shay'an moo wax ne képp ku dogal aji woor danga am yool ba kem yool ba aji woor ji am da nga ko am te du wàññi ci yoolub aji woor ji dara ñooñu nag ñu dégg xadis boobu ak ni Sëñ Tuubaa meloon ci weeru koor ak daan ci daan ci xitalaat daan ci bëgg eh, ñoom ñu daal di jël mbir moomu dëppe at di woo jaami yàlla yi nekk biir Touba ak doxandéem bu mën a ñëw ci dëkk bi rek te gis soorali jumaay Touba boo fi ñëwee incha allah rabi da nga dobb muy liggéey bu rëy bu màgg nag boo xam ne eh, dañ ko ànd ak ay mbokki jullit eh, mbokk yoo xam ne ay taalibe lañ yu rëy yoo xam ne dañuy jël seen ñaq seen alal ak waa dëkk bi ci def eh, sëriñ Bassirou Mbacké Khady mi nga xam nag moom macha allah ñoo àndal ni tey te yàgg koo baaxe ànde dafa nekk kenn ci ñi nga xam ne al muhsiniina lañ ñoo xam ne dañuy jël seen alal ñëw di ko barkeeloo ci liggéey bu mag bu rëy bii waaye du moom kese waaye am na ay ay wëllëreem ak am di jàmmam yoo xam ne gis na ne euh, ñu bëgg lu baax lañ te dañuy defal yàlla saa su ne Sëñ Bass di leen woo ci liggéey bi ngir ñëw jàppale euh, daayira Moukhaddamatoul Khidma ci dogal euh, gani Sëñ Tuubaa wala gani weeru koor yi mën naa tudd ku mel ne Sëñ Abdoulaye Diop Sénico mën naa tudd ko Alhaji Moussa Ndiaye ak ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay jàmbaar na ñoo xam ne Cheikh Amadou Bassirou mii mooy ànd ak ñoom indi leen ci liggéey pour liggéey tey nag muy bisam muy bis sëñ Basiru ndax euh, ku ti ne da nga am bis bis bi nag daayira Muxaddamatul Xidma jagleel ko chaque année buñ ne suba la ñuy séntu wala tey lañ séntu bis bu mujj boobu moom moo ko moom mu indi xéewalam goo xam ne xeeb na ko ndax bu ko bu ko bu ko sañoon wala mënu ko dëgg dëgg dëgg mooy lépp lu ñu fi dogale rek ba weer wi jeex ci moom loxoom lay jóge waaye nag kenn ku ne daa am la ci barkelo ba tax tey mu indi addiyam yoo xam ne ñu mu ko baaxee indee ànd ak mbokki nag guy mi tey boo xoolee ñi mu àndal bi Euh, macha allah tabarakallah kër sëñ baara mën naa wax ne kër sëñ la ko dalee sëñ Modou Baara ba sëñ Xaadim Awa ba boo xoolee njaboot gépp ngi toog waaye yëmut euh, la ñu ngi toog waa kër sëñ maanaam rakki sëñ Tuubaa wala magi sëñ Tuubaa yi sëñ ba sëñ Masamba seex yi ndax sëñ may wax nag ñëpp ko bokk ndax yaatoom ak bëggoon wax ak mën a yaatalam sëñ mi ngi ni toog suñu wet ah, sëñ Waadaan Sugu sëñ sëñ sëñ Ahmad Sugu mi ngi toog ak ñeneen ak mbusoo bi ñëpp a ngi toog mu ñëw indi addiyam ñoo ngi symboliser liggéey bi nga xam ne moom la daayira Moukhaddamatoul Khidma nekk te lii nag mu nekk lu am solo ndax suñu borom subhanahu wa taala da bëgg euh, wane jëf joo xam ne day bëgg ñeneen roy ci moo tax yàlla dana wax bi jàgg li misli hada fal ya'mal aamiluun day wax lu baax wax lu baax bi jàgg mu ne ku jëf daal jëfat jëfat ci mel euh, ku dugg bay njëkkan def lu baax daal mi ngi nii mooy daayira baa ngi nii daayira Moukhaddamatoul Khidma di ay jàmbaar yoo xam ne budget bi ku xool ren xam ne yokk na ndax tey bi ñëwee léegi dugg ci jumaa ji ba diglu waxtaan tuuti ànd nañoo si Ahmadou gis na yokk na ndax bu njëkk fii rek lañ daan yem kon day mel ne personnel bi yokk na nit ñi yokk nañ loolu nag Pastef moo ko maye ak liggéey bu rëy damay wax lu mel ni état mënu ko état tey bu ko bëggoon def mën na ay lay génn wallahi ndax lii ku waxal ay ay ay ay ñetti junni nit ñu fi dajee di lekk ndoon demoon noonu tey état bu ko bëggoon def mënu ko waaye pas-pas moo koy mane ak dogg moo koy mën a mane ak bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa moo tax weer la weeru tedd wu mag woo xam ne Sëriñ Tuubaa da ko daan kañ di ko tagg yaa xayri day fi xat ataa bil bisri madadi ahlan wa sahlan wa tahrim bi adin bisri boobu ak mbégte moom nag moom la daayira Muxaddamatul di wane ci jaami yàlla yi ci ñi dëkk ci dëkk ak doxandeem yi Cheikh Amadou Bassirou daal moom la ma waxoon daaw rek laay waxaat nee na sant bu dee am moom moo leen di sant ndax ñoom dañoo gis lu baax woo ko ci te ku la tegtal du lu baax nag maanaam dala ndax ndax ndax lan da dalaa woo ne la kaay defal yàlla te yàlla nag koo lebal mu fay la te alhamdulilahi rabbil alamin kon nee mi ngi sant daayira Muxaddam Xidma di leen ñaanal liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko ñoom yàlla nañ ko ay ati ati ati at waaye ànd ko Cheikh Ahmadou Mountakha mu yàgg fi loolu tëbër ànd ko mbokk julli mbokk taalib yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ Basiru ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax ci tur sëriñ Afia di nuyu itam kilifa yu tedd yi nga àndal yëpp ñoom ñëpp ñoo xam leen ñuy suñuy bokk di suñuy xarit di suñuy wëlëre ñu yàgg ànd ak yow lool ci bis bii di ci teew ñoom ñëpp di la ci teewle di ànd ak yow ci jëf ji nga xam ne yaa ngi koy jëfale Serigne Touba ci barab bii ñu lay xamal ne nag ci kaddu Serigne Afia ñu ngi lay cant cant goo xam ne Serigne Touba rek lañ koy seereel loolu it li ko waral sab taxawaay la ndax gis nañu ne barab bii diirub bañ ko ba nga xamee ne ñi ngi fi di fi taxaw ba nëgë ni lépp luñ mas a soxla mu dugg sab nopp taxaw nga ci ba loolu sotti mën nañ cee tudd yu bare bare bare bare bare waaye bi ci mujj rek di xam nga ne at yi ñu wees yëpp ci ab nawet la ñuy gàmm ñaari at yi ñu wees yëpp ci nawet la ñuy gàmm daaw mu jaaxal ñu lool suñu xel ne yar ci yow ñu ne sëñ Basiru tañ ko ko wax ñu wax la ko yàlla def nga taxaw ci taxawaay boo xam ne da la ci yàlla suturaale nag mooy waxtu bañ demee ba tàmbali gàmm gi ba dox ba bi ba minuit une heure deux heures yàlla jékki andi taw boo xam ne kiimaan la muy tax bu bare bi lool waaye mboolem ku nekkoon ci gàmm mboolem baas yi ñu baasoon ci biti yëpp dafa naaw lépp dafa naaw baas bii rek moo fi des continuer gàmm gi bu bët set loolu nag day wane nangu gu la Sëriñ Tuubaa nangul sab liggéey ndax la naawal baas yooyu yëpp mënoon naa naawal baas mbaa mu xotti ko mbaa mu yàq ko mbaa ndox seen sax dugg ci biir nit ñi waaye loolu lépp amut loolu day tegtale rek sa Pastef bu rafet yemoo ca waaye da dafa dafa continuer far dafa continuer gàmm gi ci topp dañ ne sax na far gën a baax baas bi ñëwaat ci gàmm gi ci topp muy gàmm gàmm gi ñu weesu moo gën sax ba ñëwoon gàmm daaw ndax palet sax la ca amoon ci sikk ku si néew dañ ko corrigé ci bi bu daaw bi muy muy muy benn beneen bi ci des caméra de surveillance yi jaaxaloon nañu lool ndax jafe-jafe yi bari woon na càcc gi bari ci biir jumaa ji yeneen yi bari lool waaye kër ba mu duggee sab nopp da sol sa saw dàll taxaw temm ci nu mu amee ba lépp am te yooyu yëpp yàqul dara ci liggéey bi ngay liggéey seen sëñ Tuubaa ci koor gi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yuñ mën a wax la ak yuñ mënta wax waaye yooyu yëpp nag nga taxaw ci taxawaay boo xamante ne bii nit nag su dee jëf moom mii jëf mën na koo bañ a wax mën naa bañ a bëgg ku ko wax waaye yëm mi ko jëfal nag danga koy seere ba ñu baax ñëpp xam ne moom mii kat mi ngi taxaw taxawaay bu bu mel nii ci barab bu tedd bii nga xam ne barab bu maamam da barab bu Seexul Xadiim kon Sëriñ Bas cant giñ la giñ gi ngay wax nii ñun ñoo la ko ameel ndax mën nañ fay nekk di góorgóorlu di jéem waaye nag am na ci yoo xam ne wax dëgg yàlla mënuñ koo lijjanti suñu bopp dañ ñu koy lijjanti rek te buñ ci eggee ci ñu mel ni ci ñu mel ni yéen lañ lañ ci mën a waxtaanal buñ ci waxtaanee ak nag mu gis ne liñ leen luñ leen wax ci barab bi mu ñor leen ngeen sol seen tànk tubéy seen ngeen sol seen dàll xar ci seen tànk tubéy ba loola sotti wax dëgg yàlla ameel nañ la cant ameel nañ la ngërëm waaye nag jëfaloonu jëfaloo keneen Sëriñ Tuubaa ngay jëfal te Sëriñ Tuubaa mi ngay jëfal nag dafa am pay kaddu ko sëriñ Sidi moom Sëñ Abdou Lahad wax ne Sëñ Abdou Lahad daana wax ne sëriñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba samay morom raw ma nee na nopp mësu ko dégg bët mësu koo gis waaye nopp du ko dégg mukk bët du ko gis mukk kon nag na sa xel dal na sa yaakaar dolliku na sa njort rafet te xam ne barab bii la ci Sëñ Tuubaa waxoon te ba koy sant mag ñi loola moo fi nekk ba nëgëni si tey ku ci feeñ da nga feeñ ba faw kenn kenn kenn mënu ci dara kon nag yow taxawaay bi nga ci taxaw na la wóor ne taxawal nga ko sa bopp waaye taxawal nga ko sa maam Cheikh Mamadou Lamine Bara taxawal nga ko sa baay Serigne Khadim taxawal nga ko itam sa boolem bokk yi nga bokkal Cheikh Mamadou Lamine yëpp te te te na doxin wi nga ci man ak ni nga ni nga ko mane xëy na am nañu yéene am na ci ñoo xam ne am nañu yéene ja waaye wuñ ko noonu waaye ñoo ñëpp defaale nga leen nag ñëpp defaale nga leen kon ci biir loolu ñu ngi lay seeral cant yooyu di la seeral ngërëm yooyu di ko seeral sa bokk yu baax yi nga àddal di xamal ne ñoom ñii de ñoo ñun ñoo ànd liggéey ba mu tàmbalee ba léegi sëñ Abdou Aziz mii de ñëw na fi ay yoon teew fi ay waxtaan yu bari sëñ Modou Bara Abdou Khadim ak mën naa wax ne waa waa guy mel ni yëpp waxtu wu ne ñi ngi ñëw di ànd ak ñun ci liggéey bi kenn ku nekk ca fam mane ak lam ca mën a jàpp xelam mu rafet xalaatam bu rafet ak yéenam ji rafet sëñ Bara Abdou Cheikh Abdou Lahad ñoom ñëpp kenn kenn des ñoom ñëpp ñi ngi ñëw di taxaw loolu nag dañ la koy seeral ndax say bokk lañ te ñu ngi jëf lu baax niñ leen di seerale sa jëf yii dinañ lay seerale seen taxawaay yooyu di la sant di la gërëm tey ñaan nag ñu teewaat fa ay at yu bari te jëf ji nga jëfal Serigne Touba Serigne Touba nangu ko te ful ko te laqal la ko fu yàq eggul te jariñ la ci jariñ ci mboolem koo askanoo ci yow wala koo askanoo ci moom ak mboolem sa xarit yi nga xam ne yéen ko ànd yëpp suñu borom defal leen tawfiq àddina tawfiq àlaxira asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dañ moom duñ leen duñ la sant dañ lay ñaanal. jàpp na suñu cant suñu cant amalu la njëriñ. ndax jàpp na ne suñu cant amalu la njëriñ. waaye nag jëf ji seere lañ ci. waaye nag jëf ji moom seere lañ. nit ki nag sañ naa se sañ naa seere li mu gis. nit ki nag sañ naa seere li mu gis. gis nañ ne sa taxawaay ci barab bii. gis nañ ne sa taxawaay ci barab bii. yeesut benn taxawaay. yeesut benn taxawaay. te kenn taxul nga def ku may samaam seewul xadim. te kenn taxul nga di ko def ku may samaam seewul xadim. kookee nag lu waay jëf ngir moom. lu waay jëf ngir moom. yaakaar naa doo ko rëcc. yaakaar naa doo ko rëcc. noonu nag ay seere lañ ci. noonu nag ay seere lañ ci barab bi di yëngu ndax ñoo fi ci barab bi di yëngu lu waaye jëmee ci barab bi su ndox nga koy teg waaye seere nañ ba tàyyi de jëf joo xam ne moo tax nga def ko moo loxo ñu defal la ko ci barab bi yàlla na la fay ngën ji lu muy fay ngën ji lu muy fay ak lu muy fay sët bu jëf lépp na ko boole teg ko sa wuta musal la it ci xeeti wéradi yëpp. li li ngeen mébét lépp. li ngeen mébét lépp. bëgg koo liggéey def ci lislaam bi. bëgg koo liggéey ci lislaam bi. bëgg ko def ci yoon wi. bëgg koo def ci yoon wi. def ko ci bokk yi. suñu borom defal la tawféex. nga def ko ni nga ko bëggee. nga def ko ni nga ko bëggee. ba doyal nag. ba doyal nag. barke borom Tuubaa yaag sa bokk yi nga àndal yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah. أنت الحفيظ الذي وجهت في أبد إلى سواي الرضا والضر يا الله